jël sa ndey lan la def sa bay ba sa lay nga ko jappé ni la jël sa ndey nan la def sa bay ba sa addu nga bu ko jàppe nii doomu gor yu bax yi bëgg leen bëgg fi wo dara ginaaw barcelone nga dekk amoo néeg bu baax amoo solde bu baax sumay waxat damay waxat doomu gor su baax ndaanaan yu baax ya nga biir barcelone di tekki dara laajal sa ndey lan la dess sa baay ba sa aduna nga bu ko jàppe yi laajal sa ndey lan la dess sa baay ba sa aduna nga bu ko jappel ni wala jën yi ci gaal gi ñoom ñoo la doofloo wala dangaa xuus ci gaal am dépression bi nga ñëwee ci dëkk bi amuloo foo fii laa sekkaa nga dëkk ci ginnaaw baax sa loolu sa ko bàyyil di for mbalitu <laughs> tubaab yi ñun de ñun ñu for benn mbalitu tubaab dañu am jom am lu ñuy def am nañu géré yor suñu projet dudu dudu bu baax suñu dem Europe ñu jël vol bi daal di gérer premier classe fofu la ñuy toog nga dëkk ci ginnaaw Barcelone xam fi ngay liggéeyé xamna yow yaay kan benn neeg bu baax sax sam ko dañu lay fay xaaliss di wax lo an sa ngor an sa gore xam nga do jom ba ñaaw ni ngay waxal duñu la faale ndox duñu samaas laa jël sa baay lan la def sa yaay jël sa baay lan la def sa yaay laa Seca foofu nga dëkk ca ginnaaw Barcelone di liggéeyee Porto Alegre xam naa la nga sama caw jugi may jaay yëpp dinaa ko boole dugal ko sa tëdd jaru ndey di ko ci dëbb di ko ci dëbb xaaral ma dem ci boutique bi jël caw jug ni mu xonkee ni muy xeesalee noonu lay roccee ma def ko sa dëjëw nday so ko sa dëjëw nday sa nday datam nayam so ko sa dëjëw nday sa nday datam sa maam datam ndayam sa ko sa datam nday sa nday ko sa datam nday sa datam baay lay jël bu leet ko sa data bu màggat bii ma rocc ko damay jël sama taw ju gii may jaay ndey Fatou ñaata taw diw nga dese sept taw diw man dese naa 45 taw diw léegi xaaral ma jël sama toj yi ma doon jaay ak fer yi ñëw bi data nday soko ko ci biir xeesal ndey Fatou ndey Fatou ñaata taw diw nga dese ah dese na 29 naa 35 taw diw ak ak ak ak taw diw bu ndey Fatou yi 29 yi moom la ñuy jël ubbi sa datam nday sa soxla sa datam ndey la ñuy ubbi ci di ko ci rokkas benn caw jóog ci data yaayu ñaari caw jóog ci coppiriitu maamu Sokone maamu Sokone Sokone sa maam coppiriitam bi la ñuy këcc def ko brochette. potu saabu bii moom la ñuy ubbi def ko ci sa buumu baay di ko ci rokkas di ko ci rokkas di ko ci rokkas xam nga sa data yaayu Sokone dafa ñuul dafa ñuul te dañ koy war a def sirle tuuti. mu dindi taas ci nekk ndax sa yaay day day du doxal day day ay tubéyam di doxal ay tubéyam léegi ñu jël ko nokkos ko sa dijjaw nday di ko ci nokkos 24 heures sur 24. kii saak bii Maroc lay jógee fa nga jaare woon fa nga jëlee gaal gi moom la ñuy jël diw ko sa lëfal ndey. ndey faat ndey faatalaw bi fàtte ngaa dugal fàtte ngaa dugal si fàtte ngaa dugal sa lait de corps yi de pierre lait de corps loo ba gi loo ba gi ba tey fàtte nga ko dugal si te daan nay soko waaw léegi am naa fi benn lait de corps nañ ko bës dëjëw nday sa ko di ko ci bës 24 heures sur 24 di daw tuunu ndeyam lokkati ndeyam xuuri baayam ñu boroset ko bu ñu ko borosetee daal di koy def sauce bu sax sàpp dégg léegi caw jub bi ak ak lait bi lait de corps law ba gi ba te xam nga day xeesal gis nga ma nii ni ma mel macha allah léegi xuuru bàyyi sa ko lañ koy diw mu xees ñu ubbi lëfal ndeyu sa ko daal di jël coppiritu yaayam ah daal di dëgg ay weenu maamam sulli maamam def ko ci dëjëw ndeyam. léegi nag leen laa doon wax fer yi dañ koy duggal ci cottu ndey soko di ko ci nokkas di ko nokkas ci sa dëjëw ndey so soko di ko ci nokkas boo fay koo ñaari mbubb ngay jënd def live macha allah dangay màndi dangay fóon drogue bi ngay fóon lii la ñuy nokkas sa cottu ndey gis nga caw jug yi ak ak ak fer ñàppantaan yi tëj xuur yi waa Malick Diop soo ko ne stress Malick Diop sa dayu ndey sa ndey dayu ndeyam sa lëfal ndey doomi xaram bi dangay naan sàngara fa ngay liggéey amoo fa solde bu baax sa data nday fii ba saara baa kunta kunte sa tuunu yaay daa am ay ñeex daa am ay ñeex sa ko sa tuunu yaay eh kalaag yoo xeen sa xuuru baay sa xuuru baay Malick Diop Malick Diop sa data nday sa ko sa data nday Malick Diop kii ferwaayatu France bi la Malick Diop sa ko sadatan day la koy tokal cukku cukku cukku di ciop copparit bi di moro moro ba mu yag ma duggal ko ci biir kii dama koy tëmbal ci sadatan day maalik ciop sa ko sadatan day sa ko sa jottu nday neex na uwaate sa ko sa xuuru bay sa ko sa koy bu ndaw bi nga xam da nga nan wo nday faak di ko ko wan naan ko nday dama nan ciop xam nga sa ko yow na maalik ciop <laughs> yow da nga daan tëdd ba guddi nga yowoon day faataloo bi xam naa nga defe ne day faataloo bi ci xale cagay la bokk wala day faataloo bi dafa libre nga dindi sa cuucu bu ndaw bi ndeysaan naan ko ndey dama laa bëgg def nii def nii nga farax toll xasaw xun fa nga dëkk ci gaaraas ngay fanaan raxas liggéey nga ci restaurant raxas nga laat nga ay tubaab ay taat taatu tubaab waaye léegi Malick Diop comme yow dangaa nopp nday faatu damay jël cuuraayu endo bii Bisaamata Mbaye yow Malick Diop cuuraayu indo bi xam nga dafa dafa neex nag cuuraayu indo bi ay kat jël boole ko sama caw ju bii may jaay dugal ko sa dëjëw nday di ko ci bés Malick Diop ba mu fël sa xuuri baay sa cokki baay sa xuuri baay Malick Diop sa lëfal nday lu am dama daa supp kànja maa tëj dala ko mbalax sa daata nday Malick Diop sa lëfal nday Malick Diop sa daata nday